du ak Yaya épice épicel sa àdduna naturel. salaam mbokk yi safin Sept TV maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp di ñëw ngeen safin ak foofu Espagne ak club bi di FC Barcelone mi nga xam ne léegi matal nañu prolongation contrat bu seen jour bi di Lamine Yamal kon na Lamine Yamal mi nga xam ne nag signé na si weeru juillet bi laata nag ñoo dem si euh, tournée internationale bi. ñu koy soog a kon léegi officiel na Lamine na contrat am Barcelona ñoo bëgg a tàggali ko carrément ak seen joueur bi di Ansu bi nga ne nag dañu ko abale foofu sa Brighton sa Angleterre kon ki di Ansu Fati bi nga ne nag Barça ñoo ko abale foofu dañ ko bëgg a jaay carrément si mercato yi di ñëw kon daal la suñ sigee offre bu baax dinañ ko bàyyi mu dem Villarreal dañoo bëgg a signé joueur Barça bi di Marcos Alonso bi di ñëw kon ki di Marcos Alonso waa Villarreal pare nañ fay ba 1 million d'euros ngir nag mun ko am Real Madrid ñu ngi bàyyi xel Désiré Doué bu ren kon nag ci di Désiré Doué nekk ci club bi di ren waa Real Madrid yónnee woon nañu ay recruteur ngir naka ñu si match ren bi passé ndax bëgg nañ ko recruter. Real Madrid bi nga xam ne nag dañoo bëgg a signé Alonso bi nga xam ne nag mi ngi def ay résultats yu solo si banc Bayern Leverkusen foofu sa Allemagne kon du Real kese ko solo ndax yenn club yi nekk foofu sa championnat Angleterre xam ne nag fasal ñu leen ñoom jot nañoo. wane seen na bëgg-bëgg si kii di eh, Xabi ndax résultat yu baax yu nekk di def si yabaw Bayern Leverkusen Jérôme Boateng mi ngi entraîné si club bi di eh, Bayern Munich nga xam ne nag jotoon na fa nekk ay jamono ndax eh, Bayern Munich bëgg nañ ko delloo si te bëgg nañ koo xool ba pare balaa ñu ko recruter kon na jamono ñu toll nii nag dina fa amal entraînement si ñett fan yi di ñëw waa Bayern nag dinañ xool ndax dañ koy recruter am déet Inter Miami bu Lionel Messi dañoo bëgg a recruter Real bi di Luka Modric kon na bëgg nañ ko recruter te David Beckham bi nga xam ne nag président jot naa bëgg-bëggam si kii di Luka Modric si weeru janvier bi wala si mercato bi la di ñëwaat muy su saison bi jeexee dinañu def ay jéego ngir naka xool nañ ko recruter match Ligue des champions bi nga xam ne nag moo war a xew suba si diggante Napoli ak Real Madrid kon na jamono ñu toll nii jour Real yi ñu ngi Napoli waaye nag démb benn tremblement de terre moo xam daal suuf si moo yëngatu lu toll seconde kon daal fu mu toll waa Real dañoo amoon naa jaaxle bu baax seen na joueur yi ñu ñëw fii si euh, Sénégal kii di Malick Daf dina dellu si ban wu jaraaf kon Malick Daf bi nga xam ne nag euh, nekkoon na fi entraîneur bu waat si ban bi ndax euh, fu mu toll ñu ngi si waxtaan te mën nañoo officialiser fii si biir semaine bi kon daal Malick Daf dina ñëw remplacer Laye Gueye bi nga xam ne nag jóge na fa ñu jeexal ak coupe du monde des sur mu yemu coupe du monde pour ñu tax yi ak ñu mënul la wax Sénégal mu ngi war a jouer match demi-finale war see jàkkaarloo ak Ukraine match bi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 du yéex. ak yaayaa épices épicel sa àdduna naturellement.